waaw jërëjëf sëriñ Bay ñuy sant bu baax a baax di sant yàlla sunu borom ci li nga xam ne may na nu ñuy joxe li nga xam ne mooy euh, tabaski yi ñaan yàlla sunu borom sëriñ Abbas yàgg suñu kanam ak njabootu borom daaru sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo jiite yoru sëriñ Touba yàggal yàlla yàggal ko ci suñu kanam te may ko kattan ak wér di rafetlu bu baax waxtaan wi nga xam ne moom la sëriñ Abdoul Aziz sëriñ Abdou Samad wax ndax ndaxte jamono yu nekk actualité dafay baax nga feeñal ko ñu xam ne Eh, xam nañu liy xew li xew lépp yëg nañu ko te yëg nañu ni muy demee benn misaal rek laa la ciy jox mooy eh, tey am nañu tabaski am na ñu tabaski démb ñu tabaski démb dañoo jàpp ne bis bu ñu taxawee Arafat rek ci ëllëg se moo war a doon tabaski te du noonu eh, am na ñoo xam ne gàcceel nañ leen ndax te am na benn vidéo bu jógee Makka démb boo xam ne leeral nañu bari ne leen kenn ku ne sa juróom-ñeenteeli fan mooy sa Arafat boo xam boo fekkee boo nekkul Makka du sa sa Arafat boo nekkee fare mooy sa mooy sa Arafat kon loolu kon yeete googu waroon nañ ko mën a jëlee ci biir réew mi te duñ ko jëlee ci feneen fu dul euh, ci ci këri diine yu mag yi parce que lépp lu ñu war a def lu nekk mag ñi def nañu ko Serigne Touba def na ko Alaaji Maalik def na ko keneen def na ko ci ñi nga xam ne jàngale diine moo leen fi bàyyi woon kon bu ñu demee ba ab vidéo di jógee Arabie Saoudite di leen yeesalaat seen diine dañoo wàcc seen loxo nañu xool téye lu baax li ñu am ak mag ñu baax li ñu am ñu téye ko te wàcc li nga yor boo ko wàccee keneen da koy far defe naa ne loolu kersa mënu koo de tale dellu na ci xibaar yi nga xam ne moom la sëriñ Abdou Samad doon wax jërë ngeen jëf